أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريدا أو به أذى رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 زين الرابحين أما بعد جنا بنو سنت يالله جل جلاله تبارك الصلاة والسلام نيوان بتاعي كتاب الحج والجاه الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري جسن جتا بيويس جسن لنتباب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسق الحج لمن لم يكن معه هديه بنت بيوها من تعمم ويوحتوار التمتع ak qiraan ak ifraat muy xeeti aj yi nga xamante ne muy ñetti xeeti moom moo am ci aj ak firi nga xamante ne moom la ñuy firi aj ñeel gi nga xamante ne amul maanaam hadiyu gu mu euh, àndal euh, loolu gisoon nañu ci euh, lo gisoon nañu dañ dañ ci àtte boobu insha allahu taala gisoon nañu ci xadiis sayyidina sayyidatuna bi radiyallahu taala anha ليغا خامتاني موم لا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا manam آه، كان yenen صلى الله عليه وسلم lañu andalon daali جنة maanaam bi ñu génnee maam ngir te gisuñu woon lu dul ne dañoo war a dem aji ba ñu demee nag euh, ba ñu jubee ca kaa tawaaf kaaba ga yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñuy digal daal di digal képp ko xamante ne wommatulaalewul woon hadiyoom ah, nee na daal di simmeeku ci armaal gi loolu moom moo tax ñooñu ñëpp daal di simmeeku seen armaal li nga xamante ne ñoom amuñu woon hadiyu wommatuñu woon hadiyu te jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu fekk ne ñoom ñoom it euh, wommatuñu woon seen xad yi ñu moo tax ñu daal di simmeeku gisoon nañ tamit maanaam xadis boobu ba tey euh, mu ngi xadis soxna Aïcha bi radiyallahu anha maanaam riwaaya bi ñu njëkk wax nii riwaaya al aswad la euh, ibnu yazid an naqai rahimahullah amma riwaaya sayyidina awaami radiyallahu anhu mu jël ko soxna Aïcha radiyallahu anha موم دا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل صلى الله عليه وسلم وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج dañu gennon and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bisu hajjatul wada hajj bo manam euh, atu hajjatul wada mu am ci ñun ñoo xam te ne dañoo armaale woon umra am ñoo xam ne dañoo armaal am aj ak umra am ñoo xam ne dañoo armaal aj rek waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj la daal di armaale maanaam ak goo xam ne dafa ànd ak umra comme ni nga xam ne noonu la leere ci yeneen xadis yi naka noonu gisoon nañ tamit euh, xadisu euh, euh, marwan xakam rahimahullah wa radiya anhu bi mu naan fekk naa shahidtu osmaana wa aliyan رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من ne فكنا سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهما فك سيدنا عثمان دون Seydina ما نمتع tere Eh, ak ñuy dajale maanaam mooy ak ñuy def xiraan di dajale aj ak umra ba mu gisee loolu nag Seydina Ali karamallahu wajhahu daal di moom daal di armal ci wa daal di wax nag labbayka maanaam daal di ñaar yépp ba ko ci tegal ne ba daal ci teg ne duma bàyyi mukk waxu yeneen sunna yenent bi sallallahu alayhi ngir waxu kenn loolu tamit gisoon nañ ci xadis Seydina Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma Euh, bi nga xamante ne moom lay wax ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy ñëw euh, nga xamante ne mu ne qadima nabiyu sallallahu alayhi wa wa ashaabuhu sabihata an yaj'aluha umra maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme arab yi ñoom dañoo gisoon ne maanaam a ah, umra ci weere ak loolu kàccoore bu mag a mag la maanaam moom nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw bi ñëwee nag mu daal di leen léegi euh, na ngeen daal di euh, daal dindi leen seen umra bi maanaam seen aj yi ngeen def ko umra loolu euh, gisoon nañ tamit xadis seydna abu musa al-ashari radiyallahu taala bi mu naan qadimtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa amarahu bil hal manam euh manam bo muy mu jël ko Taariq ibn Shihaab radiyallahu anhu moom mu ne Seydina Abu musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nee dama ñëw ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam manam moy bi mu jógee Yaman nee na waaye nag fa amarahu bil hal mu dal di koy digal ci musime simmeeku firi ak gi manam def ko umrah euh lolu euh gisul nañ tamit hadith sahna hafsa radhiyallahu anha di sahna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ma ne yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa sha'nu naasi xallu bi umratin walam taxlil anta min umratik qaala inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala axillu xatta anxar maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi daf ni moo tax bu nit ñi ñoom ñu daal oh, dindi simmeeku ci seen armal gi ñu armal ci seen omra gi te yow yaa ngi wéy ba tey simmeeku wuloo ci sa armal gi nga am armal ci sa omra gi mu ne ko man nag damaa damaa diwoon sama bopp bi naka noonu ma dal di yóbbaale indaale sama hadiyu bi loolu moom moo tax kon du ma simmeeku ci armal bi mbete xanaa ma daal di lacc naka noonu tamit gisul nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne abu jamrat Euh, muy euh, Nasr ibn Imran ad-Dubai euh, rahimahullahu taala moom dafa ne dama def tamattu nit ñi nag di ma ko tere waaye ma laaj ko Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom mu daal di ma koy digal daan man faf nag ma daal di gént bi ma géntee ma gént benn waaye bu ne ma hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala aj gu nangu aj gu baax a ngoo koy te umra bu ñu nangu la tamit mu ngi nii seydna abdullah ibn abbas radiallahu anhuma kontaan ci lool waay daan ni ko sunnatan nabii sallallahu alayhi wa sallam loolu de sunna yenn bi la de sallallahu alayhi wa maanaam gént gi dafa ñëw confirmer li nga xamante ne moom mooy li mu waxoon mooy li nga xam moom mooy gis-gisamoon mu ne ko nag kon nag ak aqim indi fa ajaalu sax sahman min maali toogal fii xaaral ma bu ko defee ma jël ci cër ci sama alal jox la ko moo tax imam Shu'ba rahimahullah bi mu ko ko laajee ni ko lu waral loolu mu ne ko li ma mu ne ko li ru'yallati ra'aytu mu ne ngir gént gi nga xamante ne moom laa gisoon naka noonu gisoon nañ ci euh, xadiisu euh, abu euh, shihaab te moom mooy Muusa ibnu Naafi al asadi rahimahullahu taala moom it mu daal di def maanaam def tabatto bi mu ñëwee ñu dugg si laata bisu maanaam juróom-ñetteel bi Eh, ci ñetti fan ci laata juróom bisub juróom ñetteel bi nit ñi nag naan ko eh, yow waa màkk nga eh, boo kon nag sa aj aj ajug la maanaam tabattoo mënoo koo def léegi nag bi mu waxee loolu ma dem ci Ataa ibn Abi Rabah rahimahullah ma laaj ko mu daal di ne Seydina Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu taala anhu daf koo wax maanaam mu daal di koy leeral li nga xam ne noonu la doxalee woon ak yi noonu la yonent bi sallallahu alayhi doxalee woon ak ñoom légui nak euh ci suuf foo loolu lañ gisutoon ci jotay bi wessu moy li al imam al abu abdullah al imam al buxaari muy rahimahullahu taala dadi di wax ne daal abu abdullah abu shihab laysa lahu hadithun musnad illa hadha manam abu shihab boomu amul ben hadith bo xamantene ne luñu yëgiti la maanaam ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa mu nekk ca am bu dëgër maanaam bu mel ni lu dul bii maanaam kon Abu Shihab bii xadis rek lañ ko solool te loolu tamit mu ci yokk loolu moom mooy ne ne euh, euh, euh, maam ak leeral la boo xamante ne imaam al Buxaari rahimahullahu taala daf koo def ci mbiram ngir ne saxeex al Buxaari ah, téere xadis la boo xamante ne ci wàllu yépp la maanaam wàll maanaam ci xaytu riwaaya ak min xaytu diraaya maanaam ci xeetu nan la ñuy maanaam xadis yi càllale yi ak lépp loo xam ne daf ci aju waaye tamit xadis maanaam téere la tamit buy leeral li nga xamante ne moom mooy jàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, xadis yi euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee am na nag borom koo xam yu wax ne rahmatullahi alayhi ne euh, lim ci namm maanaam du du ci lu ñu waaye mooy lu mu yëkkati te mu jaare ko ci Ataa ibn Abi Rabah mm-hmm. rahimahullahu taala moom lu ci jublu wallahu alam naka noonu gisoon nañ ci euh, euh, ni wuute gi nga xam ne moom la sayidna alin ak sayidna ousman radiallahu anhuma ñoom wuute woon fekk ña nga woon ca assan euh, nga xamante ne ci yoonu màkka bi la nekke maanaam bu ñu jugee madinatu mu nawara dañ koy romb mooy asfan ñoom mu ne fa qaala aliyun sayidna aliyun karamallahu wajahu neena manam dari wax li nga xamantene mom lañu gisoon ci suñu euh, jotay bi wessu walillahi alhamdu euh, wal minna euh, manam asfan nak mi ngi tollu ci lu tollu 94 km ak ci medine ci Makka manam kon mom fofu fofu la tollu imam al bukhari nak rahimahullahu taala danem babu man wasamah. bil hajj wa baabu buntu ngi ni bo xamne day leral man ki nga xamne labba dafa talbiya euh wax labbayka allahumma labbayka bil hajji ci aj wa sammaahu ba pare daal di koy tuddu manam daal di wax ne labbayka allahumma hajjan wala labbayka allahumma bi euh euh, euh lolu daal di koy tuddu ngir ne dafa am lo xamne ne lu mata baye xel la moy ne yi ne mi ci ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di wax ne ci comme ci xol la nekk jarul ñu koy tudd maanaam moo tax yooyu yëpp ay xeetu bidaa la maanaam di wax maa ngi yéenee fas yéenee julli euh, julli timis gi nga xamante ne mooy bis bisu alxamis gi wala bisu àllarba gii ah, ñeen ñetti rakka maanaam xeet yooyu noonu voilà loolu daanutoon am wala boog jàpp fas yéene jàpp maanaam ak yu noonu déedéet maanaam yéenee luy sax ci xol la noon doonte Shaafi'i rahmatullah alayhim masalan dañuy daganal ku wax ne Euh, maa ngi fas yéene julli wala maa ngi fas yéene jàpp waaye am na euh, teqantal yu bëri yi nga xamante ne moom la ko ñenn ñi di def maanaam di aaral ak yu mel noonu loolu euh, loolu li nga xam ne nag tamit moom mooy beneen mbir bi ci am ci wàllu aj nag moom mooy moom moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci settee maanaam mooy exception bi maanaam aj moom da nga koy tudd maanaam loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nose ko di leral ne bu aj mom da ngay wax labbayka allahumma bi xajjin wala bil xajj wala labbayka allahumma hajjan wala labbayka allahumma umratan wala labbayka allahumma bil umra maanaam ak wax du mel nonu wala bok bi umratin wa xajja comme ni nga xamantene non lako la ko bi defe won sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala bi isnad al muttasil fi al kitab li hadathana musaddad te mu ibnu musarhad ibnu musarbal mustawrad أبو الحسن الأسدي البصري رحمه الله تعالى الإمام مغ كم نيغا خامتنا نون لن غيسي وون اي قال حدثنا حماد بن زيد مومت موي ابن درهم الأسدي الجهبمي رحمه الله تعالى أبو إسماعيل عن البصري مومت عن أيوب مي ابن أبي تميمة السختياني أنه قال سمعت مجاهدا مجاهد بن جبر al-Maxzumi rahimahullahu taala abul Hajjaaj abu Muhammad di taal bi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yaakaar naa tam jotoon nañ ko gis ci suñu jotaay yi weesu yaquulu moom mu ne xaddasana Jaabir ibn Abdullah te mooy al-Ansaari radiyallahu taala anhuma moom mu ne qadim naa dëgmal nañ maa rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu te ñun kat naquulu ñu ngi wax naan maanaam bi ñuy dem ci kaaba gi ñu ne labbayka allahumma labbayka bil hajj manam labbayk allahumma ñu ngi lay wuyu yow bur yàlla bi ci turu rafet yek melo yëkkati koy labbayk bil hajj ñu ngi lay wuyu ci at gi nga xamantene mom la ñuy nar aji ji ñi ñëw ci kanamu yenente ci kanamu manam ci kanamu ci ñëw ci kaaba gi manam ci sa néeg bi aji ko loolu comme ni nga xamantene non la borom subhanahu wa taala waxon ne mam ibrahim alayhi salatu wa lin nas bil hajj wo wal nit ñi ñu ñëw aj ci bu ko defé yow nga daal ni manam mu def ko moom ba mu ko nga ñëw nag ni yow yàlla maa ngi nii ñu ngi ñëw ñii di wuyu si maanaam woote googu nga xamante ne moom nga digaloon sa yenent bu tedd boobu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam te suñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam feddali ko dëgëral ko mu wàcc ci alquran ak ci sunna yenent bi alayhi salaatu wassalaam loolu kon maanaam ñu daal di koy wax mu ne fa amarana mu digal ñu rasulullahi moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa jaalnaaha ñu daal di koy def umratan umra maanaam mooy dañoo firi li nga xamante ne moom mooy at gi dañ ko daal di firi def ko lan wàcce ko def ko daal mu daal di nekk euh, umra loolu nag mu nekk kon mbir moo xamante ne euh, mooy jëlee ak jóge ci ak fa maanaam firi ko def ko ak umra maanaam kon bu boobaa mooy da nga li ci kaw wàcc ci suuf moo tax borom lu xam-xam yu bëri rahmatullah alayhim maanaam euh, jàpp ne loolu mënati naa ne maanaam ngir ne dañoo jàpp ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf kaa digle woon ngir loola maanaam ngir rek wane ni lii mën naa nekk te at boobu rek la yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam kon at boobu la amoon occasion pour leeral ne umra maanaam ci weer yooyu mën naa nekk te def tamattu dafa jàppandi maanaam loolu moom moo tax borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim te loolu moom mooy jumhur ulama maanaam boo fas yéenee aj ba génn ba daal di def armal maanaam ba pare woote ne da ngay aj mënatoo koo firi def ko def ko umra waaye te loolu moom mooy waxu jumhur ulama ci fuqaha xanafi yi ak maliki yi ak shaafi yi rahmatullah alayhim amma fuqaha xanaabila yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañuy sukkandikoo ci suñu xadis yi te gis ngeen leen maanaam yi yëpp ngir dëgëral ne maanaam loolu jàppandi na te mën naa ne maanaam euh, kon euh, loolu wuute la bu borom xam-xam ci loola waaye daal Euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di indiwaatee maanaam ci bunt bii di ñëw xadis bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1568 dina ko indiwaat xadis numéro 1651 1785 2505 7230 ak 7367 imaamu euh, muslim indi na ko xadis numéro 1213.

2805 ak 2994 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2980 ak 3074 imam Ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mun a baabu tamattu ala ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam baabu bunt bi moom mooy ak tamattu maanaam ci riwaay yi nga xamante ne mooy lu ëpp ci saxeex bi maa noonu rek lañ ko tuddee muy baabu tamattu amma moom nga yor ah amma riwaaya Abu Zar ah, rahimahullahu taala maanaam moom mooy am ah, ah, ala ahdi nabi sallallahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala boog ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci nusaxi maanaam mooy dund mooy tamattu comme niñ ko gisee woon mooy da ngay daal di omra boo omrawee ba noppi nag daal di simmeeku nekk ci say soxla nekk ci say yeneeni mbir ba noppi ba nga xamante ne dañoo dem ba bis bi nga xamante ne mooy bisu aj barawu aj bi di jot nga daal di euh, daal di euh, armalaat daal di labbayka allahumma bil xaj wala labbayka allahumma hajjan rek nga daal di acca daal dem nag maanaam bokk ci aj ji maanaam dem euh, ci minan ci juróom-ñetteelu fan bi bu ñu xëyee maanaam julli fa ah, bu ñu xëyee nga dem araf arafat soo topp ca dem musdalifa du jóge fa dem minan a euh, sànni say jamra dellu si wat euh, daa di euh, dégg nga ñu daal di li nga xam ne moom mooy mbir yi gëléem yi maanaam ak maanaam mooy hadi yi ah, bu ñu fa jógee ñu maanaam bu ak kuy maanaam bu ñu fa jugee daa daa di tawaafi ji daa di delluwaat minan maanaam ci ñaari fan yi ci tegu sànni ji say jamra muy jamra ñetti jamra yi maanaam ngir ne bis bu njëkk bi benn jamra rek lañuy sànni maanaam euh, wat fekk ci ñaareelu ci fan bu njëkk boobu fekk après ginnaaw bi watu nga maanaam loolu moom mooy ak maanaam euh, loolu moom mooy tamatoo léegi nag li nga xamante ne moom mooy euh, ci jamono yenent bi nag sallallahu alayhi wa loolu maanaam ngir day leeral maanaam fii nii li tax maanaam mu am ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam moom mooy day day dëgg day day day indi nuance bi am ci loolu ak wuute yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhi ngir ne ñenn ñi comme niñ ko gisee ñu mel ne naa maanaam ci saxaaba yi radiyallahu anhum xatta ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina euh, Muawiya ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum ñoom dañoo jàppoon ni loolu kat ci jamono yeneen ci bi rek la woon sallallahu alayhi ku mel ni Seydina Abdullah bin Abbas moom radiyallahu anhu dafa jàppoon ni ah lii kat dafa wéy loolu moom moo tax gis nga euh, bi ñu géntee Abu Jamra bi mu géntee loola maanaam mu daal di kontaan ci mbir mi maanaam ngir ne moom gis-gisam lii la te dafa jàppoon ni sunna yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama léegi nag comme ni nga xam ne tamit indi woon nañ tamit wuute gi léegi ci wu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na nag ñu ne eh, ci borom xam-xam yi Seydina eh, maanaam sahaaba yooyu radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Omar wala Seydina Ousmane ak ñeneen radiyallahu anhum ñoom terewuñu woon koo xamante ne dafa ñëw maanaam au départ ne dafay umra ba pare daal di aj déedéet moom ñoom li ñuy tere moom mooy nga ñëw fas yéene aj ba pare fiir aj gi daal di def umra maanaam ñoom loolu lañ maanaam am na nuance bu ci nekk maanaam ci loolu moom moo tax ñoom ñu ne non non di différence bi lii la maanaam wuute na euh, am na wuute maa waaye tamatoo bi nga xamante ne moom mooy bi alxuraan rotal loolu moom sikk nekkul ci am na ci maanaam kon loolu tamit beneen xeetu gis-gis la ci masala boobu waaye daal wallahu alam euh, li nga xamante ne moom mooy ak lu mënti xew mooy ci ginnaaw gi ijmaa am na ci ne tamatoo mën naa ne tiit ku ko def def nga loo xamante ne lu baax la euh, d'ailleurs sax euh, am na boroom xam-xam yoo xamante ne dañoo jàpp ne euh, tamattoo googu noonu comme mel ne xanaa bi lay rahmatullahi dañoo jàpp ne tamattoo googu sax moom moo gën faf maanaam kon loolu ay wuute la yu boroom xam yu wuute rahmatullah ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom tamattoo la leen digal ba noppi moom le fait defu ko loolu noonu firiwul ne gënul lu tax ndox ñoom dañoo jàpp ne dafa ne comme haddu bi man indi naa ko ba noppi maanaam mënatumaa def leneen lu dul xiraan maanaam kon bu boobaa <laughs> moo tax ñoom ñu jàpp ne loolu firiwul ne euh, tabatoo maanaam moom moo euh, maanaam xiraan moo gën maanaam loolu ñoom noon lañ ko layale wallahu aalam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaab la haddasanaa Muusaa ibn Ismaayil ah, te mooy Abu Salamata at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu taala mu ne qaala xaddasanaa Hammaam te mooy ibnu Yaxya ibnu Diinaar al-Awzi rahimahullahu taala Abu Abdullah dañ koy daxetal tamit Abu Bakar al-Basri génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qataada te moom mooy ibnu Di'aamata as-Sadusi imaam bu màgg boobu rahimahullah Abul Xattaab as-Sadusi di waa Basra euh, ñu gis ne maanaam kon xadiis bi ñu weesu waa Basra ñoo ko solo bii itam noonu la. moom mi ngi gën a àdduna centième année génn àdduna cent dix-septième année bokk ci ñeenteelu génération bi rahimahullah amma euh, Hammam moom ci juróom-ñaareelu génération bi la bokk euh, moom mu ne kon mu ne xaddasani euh, Mutarrif te moom mooy ibn Abdullah ibn Shikhir rahimahullahu taala moom ci prim ci deuxième génération bi la bokk mooy ñoom Saïd noonu Musayyib ak ñu mel noonu maanaam moom ci génération boobu la bokk rahimahullahu taala muy abu abdullah al amiri di waa basara moom lañu gën a àdduna benn at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon nag ci ñi nga xamante ne dañ leen a xame woon jaamu yàlla bu kawe ak dëddu àdduna rahimahullahu تعالى حديث نك كتب سته عن عمران مم سيدنا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما مم wa momit mom wa khuza khuza wa banu khuza ala rahimahullah Euh, moom waa basara la ci ginnaaw bi maanaam ngir ne dafa bokk ci ñi ñu yabaloon basara ngir ñu jàng nit ñi seen diine Seydina Omar radiyallahu anhu yabaloon leen fa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xame woon moom kon ci tabaqa bu njëkk bi la bokk muy ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum moom nag bi moom ak baayam ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoo bokk bis bi ñu tuub dugg ci lislaam maanaam ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum xaybar ah comme muy juróom-ñaareelu ginnaaw gàddaay yeneen bi. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, moom tamit bokk na ci li nga xam xamante ne moom la ràññee comme ni comme niñ ko xamee moom mooy ne da da daan wax malaaka yi da daan gis malaaka yi da di waxtaan ak malaaka yi maanaam loolu tamit bokk na ci li ko borom bi subhaanahu wa taala defaloon ci kiimtaan mu nekk karaama bu kawe kawe te loolu noonu kibaaru awliya la ko yàlla defal maanaam nga xam ne malaaka yi dañ ko daan nuyu ah, radiyallahu taala anhu moom mi ngi génn àdduna cinquante deuxième année jàpp cinquante troisième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ca Basra rahima euh, moom euh, musnadam maanaam cent quatre-vingts la yoo xamante ne euh, imam al Buxaari ak imam muslim dëppoo nañ ci juróom-ñeent mooy neuf xadis imam al Buxaari wéetoo ci quatre xadis imam muslim wéetoo ci neuf xadis xadis sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhuma no qaala moom nee na tamattaanaa def nañu tamattoo ala ahdi rasulillah ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa nazala al qur'ana al qur'an di wàcc maanaam da gis ne riwaaya yi dañoo bëri mais boo xoolee riwaaya yi muy wax yépp dañuy tegtale lenn mooy ne alquran a ngi doon wàcc yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi fi parce que alquran ci lu mu wàcc daf ne fa man tamatta'a bil umrati ilal hajji fa mastaysara minal hadyi maanaam nga xamante ne alquran ci boppam moo ko wax ni képp koo xam ne da ngaa mooy nga man tamatta bil omrati ilal nga jël omra nga jóge ci omra dem aji ji ci même place bi te génnuloo Makka maanaam dellu demuloo ji ba pour dellu siwaat aj si maanaam loolu muy ci weeru aj yi nga ko defee loolu moom kon yow boobaa fa mas tey sara li war ci yow rek mooy ni yomb minal hadi yi ci hadiyu maanaam nga daal li ngi jàppandi ci yow ci hadiyu te li ci gën a néew mooy lan mooy am kuy mooy xar loolu comme mooy lu mel lu mën a tabaski mooy li ci a tuuti loolu nag nga xamante ne moom la euh, wax mu ne nag kon alxuraan wàcc na ci sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama saxal na ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallama làqu na te delluwu si ginnaaw amul benn aaya bu ñëw na saxal aaya bale amul benn waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëw na saxal wax jële mu ne nag kon nag loolu mooy li mu ne qaala rajulun léegi nag benn waaye moom ñëw wax bi ra'yi ci gis-gisam macha allah ko soob te kii muy wax ni mooy Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam <laughs> eh, maanaam <laughs> loolu di day dëgëral li nga xamante ne noonu la saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam ŋànke woon vraiment ci seen dëgg ji la ñu ŋànke woon alquran ak sunna ba nga xamante ne ak ku mën a doon comme li Seydina Aliin wax subhaanallah imaginer nga ci kanamu Seydina Ousmane te moom Seydina Ali moo ne radiyallahu anhu moom eh, ndax doomam ji Muhammad ibn al-Hanafiya eh, radiyallahu moom moo wax ne man sama bàyyi laaj naa ko kan moo gën ci xeet bi ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ma Aboubacar ma ne ko ku ci tegu mu ma Omar ma ko ci tegu mu ne ma Ousmane ma ne ko yow nag mu ne man jaam laa ci biir jaam yi maanaam radiyallahu anhum ajmain ànd ak ne xam na ko ndirilu Seydina Ousmane radiyallahu anhu ci kawam xam na bu baax loolu te ak yeneen ak yeneen yu koy tegtale ànd ak loolu yépp mu ne bi mu gisee ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu dafay tere tamattu gi moom mu ne man danaa ko def te duma ko bàyyi sunna yenent bi nag sallallahu alayhi ngir waxu ku mu mën a doon maanaam loolu noonu moom mooy xaqiqatan ah, maanaam mooy lu jub léegi nag loolu tey soo ko defee nit ñi dañuy japp ne da nga ñak xorma da nga yaradiku da ngaa euh, da ngay weddi da ngay diingat mais diingat kay ci yenent ma salaa sallam maanaam bu ma diingatul yenent bi rek graw yenent bi rek lay baña a diingat salaa sallam boobu mom moom garaw dugg boobu moom musibe yi la ku dul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga diingat ko manam li tek moy nga wuute ak mom garawul bul bàyyi xel kan ngay wutel budé dee nga ak bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo nekkoon gis-gis saxaaba yi radiyallahu taala anhum moo tax tudd xorma gi mu am moo tax borom foo xam ne wutu nañ ci kan la ci doon jublu ndax Seydina Omar mais dafa am ci riwaaye yoo xamante ne mooy leeral ne Seydina Omar ci boppam la doon waxal radiyallahu anhu ànd mi ngi ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu mën a nekk mais ànd ak loolu yépp gis nga wax jooju ànd ak li muy nekk nekk dëgg da ngay ne dafa am nuance manam dafa voilà manam comme comme quoi tamit nit mën nay ak daiman ba pare mu am yenn masala yo ne def ci de nim koy pas day ak li donte li mu wul waye day ak li wallahu alam bi imam al bukhari rahimahullah taala nako numéro 4518 imaam muslim dina ko xadis numéro 1226 ñaari yoon imaam an-Nasaa'i dina ko xadis numéro 2728 ak 2739 imaam ahmad dina ko xadis numéro 19833 19841 19850 19907 19933 19940 maanaam kon euh, xadis bi day gis ne euh, kon ci waa kutubu sitta ñett ñoo ko indi mooy imaam Buxaari imaam muslim ak imaam an-Nasaa'i amma imam abu daawud imam tirmisi ak imam nu maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu ljamii mu ne baabu qawlillahi taala dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjidi lxaraam maanaam dalika lii nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam mooy tamattoo gi li nga xamante ne ñoom ñoo koy def mooy liman ñeel ñi nga xamante ne lam yakun nekkut maanaam baabu day leeral qawlillahi waxu buur yàlla taala aji kawe ji zalika ne lool de maanaam mooy euh, te loolu dinañ ci ñëw ci leeral insha allah taala mooy liman ñeel nag ki nga xam ne lam yakun nekkul ahluhu ak ñoñam xaadiri di aj teewee al masjidil xaraam maanaam mooy jumaa dañu xormal la bi nga xamante ne nag fii dafa am ay masala yu bari yu ci nekk masala bu njëkk bi moom mooy ne ndax te gisoon nañ suñu jotaay bi weesu mooy ndax tamatoox ak xiraan ku bokkul ci maanaam képp koo xamante ne du aafaaq yi mën na koo def waaw wala déet loolu maanaam mooy ndax ki dëkk Màkka masalan maanaam moom mën naa def tamatta wala xiraan gisoon nañ ci wuute yi ci borom xam-xam yu wuute woon rahmatullah alayhim ci suñu euh, jotaay bi weesu ñaareelu masala bi moom mooy ndax xiraan euh, ndax ndax kan moom mooy xaadirul masjidul xaram maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo teew ci jumaa ji ah maanaam ñooñu ñan la parce que gisoon nañ ni xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàppoon ne euh, tamatoo ki dëkk masjid maanaam ki dëkk mënu ko def maanaam euh, tamatoo ak xiraan xaadiral masjidul xaram mënu ko def mooy ci teew maanaam mooy ci dëkk ci masjidul xaram kooku mënu koo def ki nga xam ñi nga xam ne ñooy jumhur mooy xanaa mooy Shaafi Maaliki ak Shaafi ak Hanaabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ne mën na koo continuer di def. ni nga xamante ne beneen biir mi nga xamante ne moom mooy kon ñaareelu masala bi moom mooy ana kan la maam définition wu kan mooy xaadiril masjidil xaram loolu nag tamit borom xoom yi ciy wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ki nga xamante ne moom mooy xaadiril masjidil xaram mooy ki dëkk ci masjidul xaram bi moom mooy kii nga xamante ne euh, dafa dëkk ci euh, maanaam miiqaat bi maanaam li ko dalee ci miiqaat bi képp koo xamante ne maanaam bu ñu rëddee miiqaat boobu gis nga ni ñu ko rëddee woon bañ ca tollee maanaam noonu képp ku nekk ci biir rek yow xaadiril masjidil xaraam nga yow kon bu boobaa affaire tamaton ak yooyu yëpp mooy xiraan yooyu mënoo ci bokk ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhur rahmatullah alayhim ñoom dañoo gis ne xaadiril masjidil xaram moom mooy ki nga xamante ne maanaam kon bu boobaa maanaam li muy tekk mooy hadiyu bi du ko indaale maanaam ñoom bu boobaa noonu lañ koy gisee maanaam mooy du soxla mu yoraat hadiyu am nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom mi borom euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy fuqahaa u maaliki rahmatullahi alayhim wala boog nañ jëkk jël fuqahaa u shafii ak xanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mooy ki dëkk ba ci euh, euh, ba ci xaram bi maanaam makka ak xaram bi yépp wala boog ngay ba pare ñu yokk ci ñoom dañ cee am luñ ci yokk dañ cee yokk ma maanaam loo xamante ne mënoo tukki maanaam tey tukki euh, bu ñu jugee màkka ngay tukki euh, tukki goo xamante ne mënoo caa wàññi maanaam bu boobaa da lañ naan kooku xaadiril masjidil xaram la maanaam kon ñooñu moom mooy ñaareelu gis-gis gi ñetteelu gis am na tax si Shaafi'i rahmatullah ñu jàpp ne à partir de fi xaram yi jeexee la ñuy compter pour xool tukki gi maanaam pas màkka mais fii xaram bi jeexee ñi nga xamante ne ñooy fuqahaa maaliki yi nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne xaadiril masjidil xaraam daal mooy ñu dëkk Màkka rek ñu dëkk Màkka rek la ak xëy dëkk bu mel comme lu demee ne Zu Tuwa maanaam Zu Tuwa nga xamante ne foofu euh, ay 9 virgule 9 kilomètres la ak digganteem ak Màkka maanaam nga xamante ne euh, waaw soriwul loolu maanaam yu mel noonu mooy banlieusards yi quoi. ñooñu kon waa Makka ak banlieue bi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee xaadirul masjidil haram xataa ki dëkk Mina ak ki dëkk Arafat ak ñoom Musdalifa bokkul ci xaadirul masjidil haram ci gis-gisu fuqahaa maalikee yi rahmatullah alayhim maanaam kon loolu moom mooy wuute gi ñu wuute moo tax acte yi ñuy wax yépp bu boobaa dañ koy daal di aj ci kaw kan mooy xaadirul masjidil haram ci gis-gis gi nga xamante ne moom mooy wuute ci borom boppam wuute ci bunt boobu rahmatullahi alal jamii mu ne qaala bil isnaad man ndax am na yeneen masal yu ci nekk dinañ ko gis insha allah taala bis bil isnaad qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab yi de wa qaala ne mu ne wax na maanaam muallaq la hmm. ah, muallaq gi taaliq gi imaam al buxaari rahimahullahu taala maanaam jokkalewu ko waaye nag ah, ismail yi rahimahullahu taala moom jokkale na ko maanaam xaj ah, ci xadis bi rahimahullahu taala mu ne qaala أبو كامل فضيل ابن حسين البصري مانام مغنسيوت الجحدري مي أبو الكامل الجحدري رحمه الله تعالى بوك فكي الجنراتشون بي غنى أدنى 145 أنا غنى أدنى 237 أنا غنى وقعد يا نبي صلى الله عليه وسلم سيرنا لك إمام البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري رحمه الله دفعي فرل دي اندي مانام هدي كي دي دي اندي Euh, maanaam euh, taaliq maanaam ngir ay xekma yu bëri yu yu yuy am bokk na ci nag mooy firi benn mbir maanaam ak ab saxaaba boo xamante ne radiyallahu anhu dafa am gis-gis ci benn mbir maanaam mu nekk wax joo xam ne moom xam la ak ay gis-gisam la loolu dafa bokk ci ni muy firi lii tax euh, imaam al-Bukhari di indi xadis mu def ko mu àllaq donte sëriñ ba nga xamante ne la ko soloo sëriñam la آه، أما أبو كامل بي آه، رحمه الله تعالى مم البخاري حديث بي رك لصلاة مم بفارة تعلق معلق الله واي أما كي هم انتنا مم إمام مسلم لو بير لصلاة مم إمام النسائي إمام إمام النسائي بيو لصلاة مم إمام مسلم مم لو بير بير بير لصلاة مم مم أك مم إمام أما إمام أبو داود معنا أه, آه، سفر إمام مسلم أك أبو داود نيو صلاة مم maanaam directement amma imam an-Nasaa'i dafa solo ci ku soloo ci moom dégg nga kon nag ñu gis ne kon waa saabu kutubu sitta ñii ñëpp ñii ñoo soloo ci moom kon nen ñoo soloowul ci moom imam at-Tirmidhi ak imam euh, euh, génération bi la bokk euh, moom it waa Basara la mu ne qaala xaddasanaa Usmaan ibnu Qiyaas euh, te moom mooy ar-Raasibi rahimahullah taala moom ci waa Basra la bokk ci juróom benn génération bi ana Ikrima muy mawla ibnu Abbaas euh, radiyallahu euh, taala anhuma dek moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma annahu naka moom kat su ila laaj nañ ko an mutaatil xajji ci mutaa bi am ci ak maanaam euh, ngir ne ñaari mutaa ñoo am maanaam mutaatu ziwaaj ak mutaatul xaj maanaam mutaatul ziwaaj mooy lu ñuy tuddee ziwaaju mutaa maanaam mooy euh, sëyu contrat maanaam boobu daganoon na ci saxaaba yi radiyallaahu ci benn jamono yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam tere ko ginnaaw gi euh, ci boobu bi mu ko teree am ñu bëri ci saxaaba yi radiyallaahu anhum ñoo xam ne xamuñu woon ne dafa xaraam ba dafa léegi dañ kaa mujjee tere gannaaw ga ci la nekkee loo xamante ne Euh, euh, Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu yégee ni mbir mi am na ñoo koy continuer di def ci la bind nag benn leetar daal di koy saxal maanaam ñëpp yëg ko maanaam xam ne mbir mi daganatul maanaam loolu moom moo tax euh, mu ne maanaam moom comme gis-gisu ak gis-gisu saxaaba yu bëri radiyallahu anhu dañoo jàpp ne ñaari mutaa yooyu yëpp yeneen maanaam muy mutaatul ak xaj ak mutaatul ziwaaj ñaar yi yëpp ci saxaaba yi rek la daganoon radiyallahu anhu maanaam daganul ci ñeneen ginnaaw bi maanaam loolu bokk na ci li tax ñu jàppee ko noonu ñaareel mbir bi nga xamante ne tamit lu mat a leeral la ci mbir mi mooy wàllu mutaa euh, mutaatu ziwaaj yi maanaam bu ñu jël benn loolu def ko benn pilier mutaatu ziwaaj bi dafa xaraam ci lu lu ñu joyal maanaam loolu ñëpp xam nañ ko maanaam euh, borom xam-xam yi laa bëgg a wax. manam kon euh euh ijmaa la ci ñepp ñi nga xamantene dañuy bayyi xel seenu wax mais par contre gis-gis la goo xamantene ne yi dañ ko amé amma le fait que chia yi amé gis-gis gogou loolu du li gën dangereux ci chia yi chia yi loolu manam parce que gis-gis la goo xamantene ay borom xam-xam mënoon nañ ko adopté ci wa ahlus sunna parce que tout simplement buñu buñu gisul won waxu sayyidna Omar bi radhiyallahu anhu gis ay ci ginnaaw gi ay saxaaba ay taabi ay ñeneen ñeneen di ko continuer di def maanaam mënul na nekk lu ñu adopté maanaam possibilité la woon mazhab maanaam gis-gis la ci côté fiq kese du li gën a garaaw dul ci ci li ni chia yi di xalaate moo tax ku ne waaye chia yi kay yii ñooñu de ziwaaju mutaa la ñuy wax mais loolu du du loolu garaawul par rapport ak maanaam boo comparé ak chia yi ni ñuy xalaate te li tax mu garaaw rek lenn rek la mooy le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci mujj gi mais su continuer woon di ko daganal du garaaw maanaam gravité gi fenn rek la résider mooy li yeneen bi tere sallallahu alayhi maanaam ko yow du sam xel ko garaawal maanaam yow bul jàpp ne sama xel nanguwul ziwaaju muta moo tax kon dagaan daa garaaw déedéet ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam na ko maanaam kon yow sa sam xel da maanaam sa sam xel wérul jàppal loolu yeneen bi saa salaam comme daganaloon na ko mu gi nag mu xaraamal ko moom nag la yàlla jox comme li ko alquran wax fahkum bayna naas bi ma araaka allah atteel ci diggante nit ñi ci li la yàlla wan gis-gis moom la yàlla may muy daganal di xaraamal sallallahu alayhi wa sallam léegi Euh, moo tax loolu di ko jël di ko débattre jàpp ni di discuter di di di di bëgg a euh, euh, kii yi ci loolu maanaam di di de maanaam loolu sax maanaam ak ñett yeewu la maanaam ngir ne siit yi seen wax yu garaaw yu bon yi ñuy wax ak gis-gis gu ñaaw gi ñu nekke loolu lu loolu loolu dafa bëri loolu ba nga xamante ne ziwaaju motaa maanaam maanaam daanaka toq ndox ci géej la lu lu tuutee tuuti la ci voilà dégg nga kon nag bi nga xamante ne kon moom lañ ko laaj nag léegi ci mut atul xajj maanaam mooy di def tamattu fa qaala moom mu ne ahal la euh, la armal na al muhaajiruuna ñi nga xam ne ñoom ñooy muhaajiruuna yi wal ansaar ak lansaar yi radiyallahu anhum wa azwaaju nabi te jam te soxna yeneen bi de sallallahu alayhi maanaam istisna mooy soxna yeneen yi de sallallahu alayhi wa sallam fii xajjatil wadaa ak soxna yeneen bi déedéet maanaam ak muhaajiruun ak ansaari ak soxna yeneen bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp euh, lan nañu euh, euh, armal nañ fii xajjatul wadaa ci xajjatul wa ahlal te ñu ngi armal falamma ba nga xamante ne xadim naa maanaam jublu nañ màkkata màkka qaala ci la waxee rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi ijaalu def leen ihlaalakum seen armal gii ngeen armal bil xaj gi ci at gi def leen ko soppi leen ko def ko umratan umra maanaam kon sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu comme ni xanaa bi lay moom mooy lan mooy mën na ñëw moom ni mu gisee mooy mën na ñëw soppi aj def ko umra illaa lu dul man ka nga xamante ne xallada dafa wommataale takk al hadiya maanaam hadiyu gi ne tuf naa ñu daal tawaaf nag bil bayti ci néeg bi wa bi safaa ñu daw ci diggante safaa wal marwa ak marwa wa atay naa ñu dikkee an nisaa jigéen ñi wala bis naa te ñu sol asiyaaba yére yi maanaam mooy dañoo simmeeku bu ñu xësee bu simmeeku la ñu daganal yëpp dañu daganal euh, moom nag bu ne dikki nañ jigéen ñi maanaam mu bokk ci woon ndax moom jamono jooju gone la waaye li mu jub li mu ci mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ah <laughs> dégg nga waqaala mu daal di ci teg mu daal di wax ne man ki nga xamante ne xalla na moo tax saxaaba yi radiyallaahu anhum day gis ku naan ñun def nañ nangam fekk moom ci jëmmi boppam bokkutoon ci jëf ji waaye li mu ci bëgg a wax rek mooy saxaaba yi radiyallaahu anhum comme ñoom ñëpp benn jëmm lañ maanaam ñoom ñëpp bokk rek radiyallaahu anhum mu ne kon nag waqaala mu daal wax ne yenent bi sallallaahu alayhi ne man képp koo xam te ne xalla da dangaa yeewu dangaa woomataan al hadiya fa innahu nag kooka de mom mom la yahul la yaxillu bumu du ah, du la yaxillu du dagan ho ñeel ko hatta mbete manam du du du ci armal bi le di ko ñeel mbete yablugha muy ah, muy yegg al hadiyu hadiyu gi mahil le ho beurep bañ koy rendee manam famu mu ñu rend ko mahil la maanaam minal halal la manam Euh, du ma du du la ndax mahal moy place mahil moy bërëb bi mu dagane ñu rendé ko ak waxtu wo mu dagane ñu rendé ko te mom moy bisub tebeski gi manam loolu la ci djublu dégg nga top nak ha ah? no haaji la kasra bi ci haaji voilà voilà min voilà mu ngo summa topp nag amarana mu daal ñuy digal ah ashiyata maanaam comme gis nga lii yëpp jotoon nañ ko gis mm-hmm. summa topp nag amarana mu digal ñu ashiyata euh, ngoonal ak tarwiyati euh, euh, bisub juróom-ñetteel bi mm-hmm. annu hilla maanaam moom mooy bu jant bi bi bi muy jéngee rek bi bi ngoon bi commencé dugg si rek maanaam annu hilla ci ñu daal nag armalaat bil xajji ci at fa iza farax naa ba ñu noppee minal manasiki ci ma maanaam ci jaamu yàlla ak ji yépp ji naa ñu daal di dikkee nag fatuf naa ñu daal di tawaafaat bil ci kër kër ga kaaba ga ci néeg ba was wabi safa ñu daal di dawaat maanaam daal di daw tamit diggante safa wal marwa ak marwa faqat dëgg dëgg nag maanaam loolu ba mu amee nag tam ma mat na xajju naa suñu aj waa alay naate mu waroon nag ci suñu kaw alhadu hadu yi kama képp ni nga xam ne qaala noonu la waxe allah bur yàlla taala aji kawe maanaam kon fa man tamataa képp koo xam ne da ngaa def tamatoo kon mooy biir omrati nga boolee omra gi ilal xaj yi ba ca aj ga maanaam nga def aj ginnaaw gi nga def aj ah, kooku fa man fa fa mastay sara li jàppandi moo war ci yow minal xaj yi ciy xaj yu mm-hmm. waaye nag fa man képp koo xam ne nag lam ya jib amul maanaam amul xaj yu bu boobaa li koy waral moom mooy fas yaamu dafa war a woor ay ayaamin ñetti fan fil xajji ci aj ji wasobaatin ak juróom-ñaar iza rajaatum boo leen dellu si maanaam moom mooy lan moom mooy kon da woor ñetti fan maanaam amoo hadiyu ñëw nga màkka ak umra nga simmeeku nga aj mais amoo mu ne la da ngay woor ñetti fan loolu nag doo bàyyi ba bisu arafat wala bisu tëbaski nga naan aw ma hadiyu maa ngi doon wër bu ba léegi aw ma hadiyu kon naa woor du demee noonu de maanaam da ngay woor ci bisu aj yi ngay woor loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah mu wuti ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama muy fuqahaa xanafiye yi ak maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom liñ jàpp mooy ne bu boobaa damay li gën loolu dafa gën ma daal di woor ba nga xamante ne bisu arafat mooy nekk ñetteelu fan bi maanaam kon euh, bu boobaa kon damay daal di day daal nekk lu ñu sopp ci man ma tàmbali sama aj gi maanaam aj gi dama koy tàmbali laataa yow mu tarwiya parce que su ma bàyyee ba juróom-ñetteelu fan bi ma tàmbali sama aj sama ñetteelu fan bi ci correct tabaski gi lay tombel te lool mënu mu cee woor maanaam kon li nga xamante ne moom mooy jàppandi ni muy def moom mooy damay woor lan ñetti voilà kon sept huit ak neuf loolu laay loolu laay loolu laay woor maanaam kon bu boobaa day daal di ràññeeku ko sax ma daal di tàmbali sama aj soit ci septième jour gi ci suba gi wala boog laataa septième jour bi manam ma daal armalat legi léegi kon mom moy mi nga xamantene mom moy wax jumhur amma fuqaaw shafi'i rahmatullah alayhi ñom liñ japp manam li feñ ci seen masab li ci gëna note euh don't am nañu japp li jumhur japp mom moy ne euh, bisu arafat du duñ ko wor manam day war nga wor ñetti fani lata bisu arafat manam bisu arafat fekk pare nga parce que bisu arafat ñi nekkul arafat joom ñoo ci mëna wor mais ku nekk Arafat doo woor bis Arafat maanaam comme que mbir mi noonu la demee moo tax ñoom dañoo jàpp ne kon lii de ràññeeku nga daal di tàmbali sa aj laataa nga daal di def ñetti fan yee waaye nag léegi mu des euh, euh, euh, boo ko tàmbalee ba noppi daal di am hadiyu maanaam loolu tamit benn possibilité la maanaam ma tàmbali ko ba noppi ma daal di am hadiyu ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiye rahmatullah alayhim ñoom dañu ne bu boobaa da ngay rek. maanaam euh, da nga daal di bàyyi ñi nga xam ne ñooy saafee maanaam euh, ak xanaa bi lay rahmatullah ne déedéet da ngay continuer ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaaw maaliki rahmatullah bi ñoom dañoo teqale ñoom dañ ne su fekkente ne bi ma tàmbalee benn bis bi laataa bis bi di mat la boobu damay bàyyi. ñi nga xamante ne maanaam su fekkente ne nag dama tàmbali naa ba woor ab bis lu mu bon bon ba mu mat boobaa dañuy sopp rek ma bàyyi wàll. waaye su ma xësee ba entamé ñetteelu fan bi ba tàmbali ñetteelu fan bi doo nga am xale yu bu boobaa nag day daal ràññeeku ci ma ma yeggale ko maanaam boobu am ci xaddi yu du du du am effet ci mbir mi léegi nag mu des juróom-ñaari fan bi hmm? Shaafi xanaa bi la ñëw nuroo rahmatullah maanaam euh, ñi nga xamante ne nag léegi ñoom ñooy euh, Euh, juróom-ñaari fan yi nan laa koy woore maanaam moom mooy ne bu ma dellu si la maanaam bu ma ñibbee ci laa koy woor am na nag ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy jumhur dañoo jàpp ne dama kaa mën naa koo woor mën naa koo tàmbali ah ci euh, màkka maanaam moom mooy bu ma nekkee màkka laataa may ñibbi bu ma dëkkul màkka mën naa koo tàmbali ci foofu noonu léegi nag euh, alquran mu léegi moom mu ne Euh, iza rajatum soo leen delloo li muy tekki mooy ilaa am soori kum mooy ci seeni seen dëkk mun mu ne ashaatu euh, xar xar tajis day doy xar mu jigéen day doy moo tax euh, mooy bi nga xamante ne mooy lépp lu mën a tabaskee rek moo ne mu ne nag fa jamaawuñ moo tax ñu dajale nusu kay ni ñaari jaamu yàlla fii aamin ci benn at baynal xaj yi ci diggante aj gi wal umra ak umra bi maanaam diggante aj gi ak umra gi loolu leeral la ci luy wane lan lay mooy ñaari jaamu yàlla yiñ boole mooy nusukul xaj ak nusukul umra léegi mu ne fa inna allah naka buur yàlla taalaa aj kawe ji anzaluhu wàccee na ko fii kitaabihi ci téeréem bi wa sunnatu nabiyihi sunna wa sunnatu nabiyihi sunna si yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom it uh, wax na ko dëgëral na ko wa abaaxahu te daganal na ko linnaasi ñeel nit ñi xayra ahli makka waaye ñu dul ci waa makka maanaam ñu bokkut waa makka rek maanaam mën nañ koo mën nañ maanaam dañ koy daal di mën a def qaala allahu buur yàlla subhaanahu wa taala nee na zaalika lii dey liman mooy ñeel na ka nga xam ne lam yakun nekkut ahluhu ñoñam xaadiril masjidil xaram di teewee al masjidil xaram voilà maanaam wa ashharul wa ashhurul xaj maanaam weeri aj yi nag allati mooy yi nga xam ne zakaraat tudd na ko allah buur yàlla taala aji kawe ji mooy shawaal shawaal muy weeru korite wadul qaada ak weer wacca tegu wadul xijja ak weer wacca tegu muy weeru aj hmm? anzalawo wàcc na ko moom yàlla fii kitaab yi ci téeram bi loolu wa sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam sunna si yonentaam bi sallallahu alayhi tamit leeral na ko wax na ko dégg nga kon maanaam atu weeru weer yi weeru aj yi ñett la kon sawaal dul qaada ak dul xajja comme niñ ko gisee woon ci wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullahi alayhim ci ndax bisu tabaski gi ci la bokk waa wala di ndax fukki fan comme ni gisoon nañ ko ci wax Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu maanaam fukki fan yi moom mooy lan euh, maanaam fukki fan ci dul xijja la amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kon euh, fuqahaa Maaliki rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne ba weer bi jeex la mooy nag fa man tamattaa képp koo xam ne dangaa def nag tamattoo fi haadihi l ashhuri ci weer yii fa alayhi day war ci sa kaw damun ak deret aw wala boog sawmun ak ah, koor deret day daal di ràññeeku ci sa kaw maanaam mooy xad yu ngay indi wala boo amul xad yu indi garaw wooral ñetti fan màkka soo ñibbee nga daal def juróom-ñaari fan dégg Euh, loolu tamit Shaafi'i rahmatullah dañu ko dañ cee sàrtal mu nekk yu tegaloo juróom-ñaari fan yu tegaloo wallaahu alam mun a war rafasu nag euh, rafas bi alquran di wax mooy falaa rafasa mooy jonjoo mooy aljimaaw mooy sëy wal fusuuqu kàccoore gi ñuy wax mooy almaasi mooy yàlla gi mooy aljidaal wal jidaalu dàgge gi mooy almiraaw werante maanaam loolu kon yeb ay firi la yo xamante ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mom moom leerale na non alquran li nak manam comme que mbir mi non la dem moy sahaba bi radiyallahu anhu moo joxe ay gis-gisam ci mbiri lolu motax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi tax def ko muallaq da imam al-Bukhari day faral di def lolu manam muallaq yimi def tegtalewul mo baabar daf ko indi ci siixatul jazmi manam bu tektele nak bi moom mbir la wallahu alam hadith bi imam al buxaari rahimahullahu taala maanaam xadis bu ko maanaam mooy parti yi nga xam ne moom moo amul tafsir yooyu indi na ko euh, xadis numéro 1545 1564 dina ko indiwaat 1731 2505 ak 3832 imam muslim in hadith numero 1239 in na ko tamit 1240 ak nëkk dina ko indi 241 Imam abu daawud in na ko xadis 1792 imaam an-nasa'i in na ko 2813 2814 2815 ak 2871 imaam ahmad ibn hanbal lu bëri la indi kon ñu gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta nañ ko moom des Imam at-tirmidhi ak ibn maaja rahimallahu al-jamii mu ne baabul ixtisaar du duxuuli makka léegi euh, yii léegi nag ñu ngi commencé dugg léegi dugg makka ak yu mel noonu ak génn makka maanaam li aju ci wàllu boobu li nga xamante ne moom mooy fii nii mu ne baabu buntu nagal ixtisaaru buy sangu maanaam buy leeral ak cangaay gi da faf duxuuli makka dugg makka cangaay gi nag doo ko sangoo ak saabu ak yu mel noonu comme ni ñu ko xamee maanaam cangaay la rek boo xamante ne euh, maanaam ngir màggal dëkk bi la maanaam ngir màggal bërëb bi ñu jëm la. bu ñu demee boo demee ba jub màkka maanaam nga daal di sanguwaat loolu bu jàpp jàppandee comme ni nga xam ne noon la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doon defee te seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu tamit noonu la ko doon defee comme ni ñu koy gisee mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana yaqub ibn ibrahim te moom mooy ad-dawraqi rahimahullahu taala bu yuusuf bokk ci fukkeelu génération bi gën a àdduna cent soixante sixième sixième année génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam maanaam moom ak euh, ñële Muhammad ibn Bachar Bundaar hmm. ñoo bokk at ay at ñoom mo ñe 167 lañu gëna a àdduna mu gën a 166 sinon ñoo bokk at euh, Baghdad la rahimahullahu taala euh, di Basara rahmatullah ñoom ñoo bokk tamit le fait que ni ñoom seen ay xadiis imaamal maanaam waa asaabu kutubu sitta dañ solo directement moom mu ne qaala xaddasanaa ibnu Ulayya te moom mooy Ismaayil ibnu Ibrahim gën a siiwee ci ibnu Ulayya rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñetteel génération bi gisoon nañ ko qaala axbaranaa Ayyub muy ibnu Abi Tamiima as-Saxtiyaani an Naafi' muy mawlaa ibnu Umar annahu qaala kaana nekkoon ibnu Umar sayyidinaa Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab uh, radiyallahu taala anhumaa uh, idaa daxala su daan dugg àddina al xaram fi gën a jege ci xaram gi. am saka da daan téye boppam ànd talbiyati ci talbiya waxoon nañ wuti yi amoon ci euh, fan lañuy la ñuy arrêté talbiya gi Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom fi mu ko etta arrêté mooy fan fi gën a jéeg maanaam buy yegg si ci xaram bi rek commencé euh, daal di koy bàyyi summa topp nag yabitu mu daal di fanaan bi zituwaan ci zituwaan wax nañ la maanaam diggante mu mu kaaba bi ma maanaam Makka neuf virgule neuf kilomètres moo fa moo fa dox maanaam soriwut loolu Ah, matul 10 kilomètres comme ni ñu koy waxee maanaam su ma topp nag bu loolu nag lan moo tax maanaam nga xam ne day sangu day mën a noppalu nga xam ne buy dugg at ci kaaba ji buy dugg màkk nag bii paa day daal di dugg ak cawarte maanaam ngir tukki tukki bu méttee maanaam ba yegg si dugg fekk yaa ngi sonn yaa maanaam xëy yenn teewlu yi nga bëgg doo ko man ak yu mel noonu maanaam moo tax nga war a waajal nag ne ah xaaral danaa voilà ma ànd ak cawarte xaar noppalu bu baax. doog a ah maanaam doog dugg si yegg si ci kaaba gi maanaam dugg ci biir màkka maanaam loolu moom mooy xegma eh, bi mu ne summa topp nag yu salli mu daal di julli bi ci moom ak suba suba maanaam kon daf fay fanaan bu fa fanaanee daal fay jullee suba wa yaxtasilu mu sangu cangaay jii nag sunna la xattaa ba su fekkente ne nekkul jamonoy aj ak umra maanaam booy dem màkka rek maanaam nga sangu balaa ngay dugg ci biir màkka maanaam ngir cangaay googu màgg cangaay màggal bërëb bi nga jëm la maanaam ak teg ak xor ma bu kawee gi nga xamante ne moom la kaaba gi amee ak néegu yàlla wi subhaanahu wa taala mu ne wa yu xaddisu te muy nettali anna nabiya naka yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yafaalu doon def zalika loolu maanaam lii euh, bokk na ci maanaam xadis yi nga xam ne fi'li la maanaam mooy xadis yoo xamante ne du la yeneen tib saa daf kaa wax mais daf def maanaam jëf ji comme ni xam nga xalis daf ci bokk loolu maanaam mooy lépp lu ñu askanale ci yonent bi sallallahu alayhi ci wax ak jëf ak lu mu saxal ak loo xamante ne melo wuñ ko jox la moo xam melo woowaa ci jëmmam la wala ci jikkoom la loolu mooy xadis waaye maanaam kon lii tamit maanaam lii moom mooy wàll li nga xamante ne moom mooy ci jëf ah, xadis bi euh, euh, imaamu muslim dina ko indi maanaam imam Buxaari fii la ko indi maanaam ci ni mu melee imaam muslim dina ko indi xadis numéro 1259 imaam an-Nasaa'i rahimahullahu taala dina ko xadis numéro 2862 imaam ahmad dina ko xadis numéro 4628 5082 ak 5600 kon ñu gis ne euh, waa saabu kutubu sitta ñett rek ko ko ci indi mooy imaam Buxaari imaam muslim moom an-Nasaa'i euh, képp ku ko ci indi tamit benn yoon rek nga ko indi amma imaam euh, Abu Daawud imaam Tirmisi ak imaam Maaja ñoom indi ko rahimallahu